bu ñu dee dund jamono yu mel nii ñi ko séq bu ñu trichewul buntu mën naa am te ñi ko séq mooy ñan góor ak jigéen ñi ko séq ñooy ñan mag ak ndaw ñi ko séq ñooy ñan ki am kàttan ak ki amul kàttan ñi ko séq ñooy kan mooy ñiy dund ak ñiy dee moi la l'humanité qui tricher avec l'humanité c'est-à-dire les hommes avec les femmes les adultes avec les jeunes les puissants avec les faibles les vivants avec les morts. Et c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Ni dundu ñoy bameli, bamel. Nax yele sax mi goor ñi dañu nax jigen ñi rek mag ñi dañu nax xalé yi rek lu ñu def ne xalé yi lañu préparer sen avenir ban avenir ban avenir koku bokul ci sunna yonent bi yonent bi sunna moy beccik démb passé na ëllëg ñëwagul bu ما مضى والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها أنت بلولو يسنم nee na boo fàttali ko démb yàq boo ne ba ëllëg yàq nee na bëccëgu tey bi nga moom defar ko ba mu jag loolu mooy li nekk du nag ñu ni ëllëg ndaw a ko moom mën nañ ko wax waaye ci aada lay dellu du dellu ci àqiqa ci aada lay dellu wante du dellu ci àqiqa sunu benn maam bu ñu wax jaaxir moo ko waxoon Alaaji Usmaan Kan ku daan tiitaroo jaaxid la boo waxee mu ni mooy maamu ñi sant kan ñëpp te neegar la woon